bon c'est qui ça sama gars yi bëggee naa leen j'espère que ni ci jàmm gars yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne leen asalaamaaleykum wa rahmatullah gars yi bu naa leen fàttali ngeen di like vidéo yi vidéo dañ ko like xam naa ne bëgg ngeen ko like mais dañ koy fàtte kon boog laajal vidéo bi après nga partagé li nga yi feebar ndeysaan ko dëkk ba ban hôpital principal wala Dantec la Dantec la ko indi ci guddi gi histoire bu gaalaa ci guddi gi benn magam envoyé ko ci la ko nervi kar nervi yi daal rek. wallaahi. nervi yi ci lañ ko kar gis na bi muy ñëw karos gis na kii bi muy ñëw karos ko daan gi ak tànk yi dañ koo dóor jaay wala wala sàcc alal ji xaalis mu retourné pour opéré yaay mu sàcc mu ko nervi yi sàcc ko jël portable am ba pare jàpp yóbbu ko policier yi gis na keroog tànkam gis na bi tànk bi toll na presque deux mois xam ne mënu cee dox. jël tànk bi gis na tànk yi. jël tànk mu leer. na deux mois xam ne cee dox kii lii la souffrir doxal amu fi mbokk amu fi dara. massa massa massa. am yàlla amul mbokk taxal amu fi dara. massa massa. courage courage courage. waaw day bi tamit bañ ko jàppee booy bu ndaw la woon mais léegi dafa màgg kaso sax. 2023.